asalaamaaleykum mbokk Lac TV ñëw nañ fii ci Grand Yoff euh, Mame Diarra moo ñu fi woo tey tegal mbëri 1 million euh, tambour majeur bi Maodo Faye la euh, Ndeye Fatou moo nekk ci micro bi kon ñoo ngi ziar waa Grand Yoff yëpp fekk nañ 54 litres lañ fi fekk. fois dina sotti adam koy buret Adama Diouf waa colonel ndeysaan ada na ko ndombo adam ko wër ndombo adam ba sotti mbër estari moo nekk noonu Adama Diouf ndeysaan adam koy ada wër na ko ndombo ba dina sotti motul mu rëcce ba motul mu rëcce ada bu rëcce bu baax de ada bu baax de ada bura cedu bahre yaji trois pide ada ba diouf ndeysaan ada war na ko ndomba ndeysaan Cey Maodo ak ñu nga ca bëre bi metti na ñu ngi ci combat bi ndeysaan ñu nga ca diggante Adama Diouf ak colonel Adama Diouf moo ko war ndomba noonu moo war ngem moo yor ngem lu ñuul li Adama Diouf daan na colonel Adama Diouf daan na colonel star mbër yi moo nekk noonu Adama Diouf ñu ngi lay delloo siyaar waa André yow foo réer yaa yoon fan waa gis nga de xam nga rek waa balaa ma wax damay sant yàlla julli si yonante bi sant sama ñaari waajur xam nga euh, di leen wax ne xam nga ñun demu ñoon fenn dañ nekkoon suñu rukk di liggéey rek parce que ñun amuñ dara dul làmb boo demul réew ma demoo fenn làmb rek lañ am kon manuma manuma parce que dama bokk parce que dem def na xam nga bu baax mais ren ñaata drapeau nga am. maa ngi doog a ubbi nii maa ngi doog a génn nii. ah yaa ngi doog a génn maa ngi doog a génn waaw. yaa ngi woon sa rëq doon liggéey daal. waaw maa waaw maa ngi woon sama rëq doon liggéey xam nga matin soir di liggéey xam nga pour dellu si waat xam nga allé boo gis am na retour quoi. léegi fan si loo leen di wax. waaw fan si di leen gërëm rek di leen wax ne xam nga ñu delloo seen xel xam nga ñëwaat démb ak tey ñu xam ne làmb ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. rafet jaajëf merci ok. Ousmane Sène ak Diatta ñoo nekk noonu ci géew bi tolloo ak moom Caaka kiñ bu Njaase Njaase bu Kër Massar nay metti ma ca Kër Massar ndeysaan ziar fan si club la ko si bi nekk Kër Massar ndeysaan ndadama tuma yayi jaata la Ousmane yaram ndeysaan kon a fogole Serigne Mbe Grand Yoff ndeysaan Ndar sot men un million Mame Diarra xoyum min xane Maodo Faye ref na ke ndey faadum na kima a layel Thiaroy no caravane rek rek rek rek fo kana xane mbayang lung rew maga den fa mamangom ndeysaan mbayang lum lamin ma ca Italie lum lamin ngom ak Baye Ablaye Diouf ndeysaan Caata daan na ko Céeme oh, Faatu ñu ngi ci combat bi Pakala keroog ñëw na fi ñu daan ko deuxième tour tey mu ñëwaat jëlaat sansam rek combat bi Modou Lo la ñëwee plaqué na ko pakala daan na ko xale boobu dëkk Gandiaye ndeysaan déggal ma ne rek Diatta Sarr ma ca Mbour yëngu na ndeysaan oh. Maodo nekk noonu ndeysaan Maodo nekk noonu mu ngi wax mu ngi wax ak mu ngi wax ak Tambar Masori am na ci Grand Yoff ndeysaan sama jigéen ñëw na ndeysaan sama jigéen ñëw na ndeysaan oh. cey Maodo Grand Yoff tey dafa bëri ay poids la sa ndeysaan te poids lourd bi bëre poids la sa ndeysaan day sonn day sonn tellement na tànk ba mbaa du ko yenu mbaa du ko oh. yenu mbaa du ko yenu daanam koy jéem a buddi mbaa dina sotti doole doxul jàmm yenu na ko daan na ko mbaay merci na ndeysaan ndeysaan cene Fatou di nuyu waa Passy Sokone ndeysaan di nuyu sama mécanicien bu ñaawul boobu la ñu nga ca ndeysaan cee ndey Fatou Maodo Faye Ada war na ko ndombo Ada war oh! Ada def na affaire Adama defati na affaire Adama defati na affaire laa ilaaha illallah ndeysaan ndaana nang ci kaw ndaana nang ci kaw ndeysaan oh. lamb day day ànd ak armonu ndeysaan jël kirkir mam mam jaara ngi batre waay séeréer daal neex na séeréer neex na ndeysaan mais xam nga ne pël amu ko joola amu ko tukulóor bi amu ko ndeysaan mam jaara moo nekk noonu ndeysaan Thank you. church ñu nga ca gaskel la tegal na ko sees gaskel daan na ko jël na tànk ba jël na tànk ba jël na tànk ba mbaa dina sotti seen combat bi metti na seen combat bi metti na ndeysaan bëre mag la ak xale Adama ngi naxanteeg moom Adama ngi naxanteeg moom Adama ngi naxanteeg moom bëri xale la ak mag bëri xale la ak mag ndeysaan Gaskel mooy romb noonu Gaskel animation animation ndeysaan Ada jël na ko Adama jël na ko mbaa dina sotti Ada jël na ko Adama jël na ko Ada daan na ko Adama daan na ko Papa Ndiaye sa mbër bi daan na waaye yow kii moom yeen façon daan lay daan Cheikh kii yan façon daan lay daan kii dama foogoon ni jeexal na ci làmb. Adama moo nekk noonu ndeysaan. waaye ma Adama mi màggat ak jinne la Adama mi dese nay ngalaju de Adama mi jar naa bàyyi xel kii naka te màggat ak jinne la pour man animé rek la mën naka Adama mi ngi ak ay man xaw lit grotokoro men la def xaw lu ma def waaye Adama mi doy na waar. waaw ndaanaanu làmb la Papa Ndiaye. aada ndaanaanu lamb ndeysaan tey dama jommi gis naa fi daan bu ne waaye daan yi aadama indi tey yii daan jaaxal na ma mais nañ ci demi final yi quart de finale bi kon ndeysaan diggante Pakala la oh ndeysaan Gracias. <laughs> champion yaa ngi génn par benn benn ci demi-finale yi de sàn diggante Pakala ak Gaskel Pakala moo ñu woon ginnaaw Gaskel moom lañ jàkkaarloo ndaw combat bu doy waar mais Ndeye Fatou defatina moninam ndeysaan Ndeye Fatou defatina moninam Ndeye Fatou defatina moninam ndeysaan ñu ngi ci diggante Gaskel ak Pakala ndeysaan ñaari ndaanaan lañ ay technicien lañ seen lamb du yomb seen combat du yomb benn yoon yëngu na ji yëngu na ndeysaan ñu nekk ci demi-finale ba léegi diggante Pakala ñoo nañ ci demi-finale ba léegi diggante Pakala la ndeysaan ak Gaskel ñu nga ca Gaskel jàpp na Gaskel jàpp na Gaskel jàpp na ko Gaskel na ca Gaskel jàpp na ñu nga ca Gaskel jàpp na Gaskel jàpp na Pakala ngi xool fu mu ko ndeysaan ñu nga ca ñu nga ca ndeysaan Gaskel jàpp na ndengeñ na ko Pakala sa ko mbaam mbaati na yomb génn waat na ndengeñ bi Gaskel génn na ko ñaari ndaanaan lañ ñaari technicien lañ ndeysaan seen lamb du ma sa yomb daanaan dañ koy borom doole la. ndeysaan public bi nga tekk ndeysaan di leen déglu. du ma sa yomb. combat bi du ma sa yomb cee ndey faatu. Mamadou Ndiaye lay woo lu ne def na ko ci lamb ndeysaan. daf fi tegee fukki nag ak ñaar yi. mu ñëw ci stade bi ndeysaan takk fi juróom-benn takk fi juróom-benn ba yóbbu làmb ji ndeysaan Ndiasse yëngu na Ndiasse yëngu na ci Ndeye Fatou ak waaye Gaskel Gaskel Pakala daan na ko Gaskel daan na Pakala Gaskel daan na Pakala Gaskel daan na Pakala san demi-finale bi mu nekk noonu ñoom ci demi-finale yi diggante gaan la ak guy gi guy gi moo ngémboo ngémbu Lagos bi xam nga vax bi ñu nga ca diggante gaan ak guy gi ndeysaan ñu nga ca ci demi-finale yi Adama Diouf Adama ñoo daan mooy waaj moo gaskel ci beneen demi-finale bi bii gi jël na ko oh gaan plaqué na ko gaan daan na guy gi ca demi-finale bi moo nekk noonu gaan moo dem final kon diggante Adama Diouf Adama Njow Ndane ak Gaskel jërë mag la ak xale bëre mag la ak xale ndeysaan ñu nga doon champion la booy xool gaskel moo gën a doon xale mais gaskel mooy tul Adama Adama trompeur la oh. Adama moo nekk noonu ndeysaan ñu nga ca gaskel il faut nga déglu Adama parce que Adama ndaanaanu làmb la Seye Ndeye Fatou o fogole seereer Adama refu nene ten fa gaskel Adama ñowtan ten fa gaskel kon ga reta final ga an maafu demi final ten maafu guy gi demi final ndeysaan ngi ci demi-finale ndeysaan du ma sa bi parce que ñaari ndaanaan ñu nga ca bëre ba góof na ca kawam gaskel moytul adama gaskel moytul adama la gaskel moytul adama gaskel waxoon naa la ko moytul adama ndaanaanu lamb la gaskel adama ndaanaanu lamb la gaskel adama ndaanaanu lamb la gaskel adama ndaanaanu lamb adama ñoo doon daan gaskel waxoon naa la ko parce que loolu naa la Adama ndaanaanu lamb la Adama Adama def na affaire waaye Adama def na affaire waaye man jommi naa tey man Basseur Moussa madame jommi na Adama Adama ma ne de si très grave Cheikh Adama Adama def na affaire Adama ñëw daan def na affaire ndeysaan Adama daan na daan na Gaskel demi-finale ñoo surprise am na Grand Yoff tey Adama daan Gaskel Adama moo nekk noonu Adama ñoo gan Adama dafa dina affaire tey ndeysaan oh, xool bi fees na mu ngi jooy xool bee fees mu ngi jooy ndeysaan Adama a ngi jooy yaram dauna na yaram dauna na yaram dauna na ndeysan ndeysaan nañ ci final bi digënté Adama ñëw dal la ak gan Seck ndeysan oh, Adama ak support yaram Adama Adama ak supporter yi ndeysaan waa Maam Jaara moo fi woon teg million tey yegsi nañ ci final bi ndeysaan Adama moo daan Gaskel daan gi la daan Adama daan Gaskel kon final baa ngi noonu ndeysaan 54 la ñu si nañ ba ci final bi ñaar ñi ci seen wërsëg ne ko fogole i mbadi den final fe demi final ke ganten Mafa Gouy Gui Adama ñëw danan na Mafa Gaskel i njeg a 54 litres Mame Diarra xoyu men ndeysaan a doon a doon piqué 1 million on ndikwene muɗu muddana ndefu a refu teen ndikwene muddana ndefu teen nder adama fagan sek ibu sengor numéro 2 a andel na gan final fe xene adama rokan oh wata o wata ibu sangor a Ibou Senghor a damaan o an jom na ko fule na doole doole doole doole doole doole doole oh, Adama daan ko Ibou Senghor daan Adama final Gana Maffa Adama final ndeysaan kon làmb ji jeex moo jël làmb ji waaw Mame Diarra moo fi teganoo million tey Ndeye Fatou moo nekkoon ci micro bi Maodo Faye moo nekkoon ci sabar yi mbokki Lac Rose TV kon gis ngeen ko noonu la mbir mi demee Grand Yoff lañ ñëwoon tey Adama moo nekk noonu mais demi retewul Adama maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi fi teew ak ñi fi teewul yëpp maa leen di sant di leen gërëm euh, di gërëm waa Cang Cang production yi ñëpp nag di gërëm encore sama famille di waa Cang Cang family, di gërëm euh, ki nga xamante moom laa tuddee woon bi muy Pape caalis Faye maa ngi koy gërëm di ko sant xëy na nag amaanaam ñëwul mais xëy na dafa am empêchement parce que empêchement moom day bette empêchement day bette mën mën ngaa waaj ba waaj ba bëgg a ñëw sax nga am tolof tolof boo xam ne da lay gantal ba doo mën a ñëw mais bu dee jàmm ko teye yàlla na jàmm yokku bu dee leneen la itam bi mu si ñaanuñu ko yàlla ba ñaanuñu ko yàlla waaye lan la ko jàmm lal maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm ñi mu nekkal ak ñi muy liggéeyandoo ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. vraiment bes bi rafetna na macha allah liñ ci bëggon am nañ ko. mu melni bi mo nekkon sa première édition ren. waaw ren mom bi mo nekkon sa première édition parce que ren do ren dama bari ay tolof tolof. dama teug waaj naa fi ñaari combat yo xamantene ne dafa tombeek gala bu mag waajaat fi combat mu ak euh, combat reg reg bi waajaat fi combat mu tombe wat ak combat balagay ak modlo Lo waajaat fi combat encore pour drapeau guest Ndiaye mu tombe ak drapeau chef de l'État xeyna nak nii la ko yàlla bëggee woon. yéen bi daal oyof na macha allah waaw. kon daal ñu xaar la daal déwén daal. waaw allah moom bu ci yàlla àndee te may nañu gudd fan wér wérgu yaram bëgg naa fi tëgg deux combats ba trois combats su ma ko sañoon sax ñu defee ko stade. te bu Pape Thialis nangoo sax mën naa ko ko dóoral dóorale ko ko stade incha allah. waaw merci beaucoup jërëjëf.